لله الكريم سلمنا على استقالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم سلمنا على استقالي بفروض وسنن سكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما خني وغادني إلي بالتخلي من بعد ما خسب بي تخلي وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي خصدي أن أتبعا على الذي من بمراد اقتدى في السر والجهر يكون مهتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وزيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى السفيع وعلي وسهبه النجوم الخائر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وآب خيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن سكرك لا أريم منذ جذبتني والجمال المؤمنين عليكم والولاكة والدنيا والآكة والذكر والبرامة والرحمة الراحمين بسرك وجدك وذكرك لا بذلتك ولولا وذلك ولك فتاة وجلة فلن من عين ولة أنا وبالقال فلاحا وبالقلب كفاية وبالبلال لطفا بالميم موئزة وبالنور نورا وبالوساء وبالوساء وبالله لطفا وباليام يسرا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين والنور سيدنا محمد عليه السلام على أرواح جميع رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولين والمرسلين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأشقائنا وصدائقنا وصاحبنا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 الله لا إله ولا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسأل له في جنيه لما بين أيدي ما خلفه ولا يتن بشيء من علم إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أخلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله آمين amin yàlla yàlla ak yonente bi an wala sirati ndooran wa jalte dafay xan wa baynana wa bayna naari sitran wa ijaban wa ila xayrati kulla dalilan wa imaman bi fadlika wa joodika wa karimika ya akrama akramin allahumma idina bi daayatil quran wa afina bi naayatil quran ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بصفات القرآن وارفع درجتنا بفضيلة القرآن وكفرنا صياتنا بتلاوة القرآن يا سلفد الولسان اللهم ارزقنا bi kulli harfin min alquran halawatan wa bi kulli kalimatin karamatan wa bi kulli ayatin saadatan wa bi kulli suratin salamatan wa bi kulli jasan jasaan allahumma ursuqna bil alfi ulfatan wa bil waawi barakatan wa bi taayi tawbatan wa bi saayi saaban wa bi jiimi jamalan wa bi laayi hikmatan wa bi xaayi xilaanan wa mi daali dunuwan wa bi saayi sakaan wa bi raayi rahmatan wa bi saayi sulfatan wa bi siini sanaan wa bi siini sifaan wa bi saadi sadaqan wa bi daa ديان وبتاء تهارة وبشاء سفرا وبالليل علما وبالخين خنان وبالفاء فلان وبالغاف غربة الكافي كويتا وباللام لطفا وبالميم معيشة وبنور نورا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 أعيننا لسنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لسنا آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك جامع الناس لمن لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي أنزلني منسلا مباركا من غير منسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن بمقدار الاسيم ان الملائكه يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما الله من كل كريم اكرم من مخدل تكرم اسلو كل كان ايماني ولا سبيل سير رحماني واجب سلو بلا كفراني تكوي سابهم عن نيراني اصبر ستوري اصل هموري كسر خيور بلا كداي لجامل النصاهري وباطن بتاهري يا ماين كبير بجاي لممي وفتنا كل باب كنت فاتيو لسان من خيرتي الله habli maram ya wahabu doona hanan wa takfini bi rasulillahi kulla bala habli maram ya wahabu doona hanan wa takfini bi rasulillahi kulla bala subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun jàmm wa salamun xeebal wa salamun jàmm wa salamun xeebal wa salaam wa salaam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jàmm yàlla gu ñu nangu fajuka jot naa ka laaxir yàlla na yàlla faj aajo yi saafara jàngoro yi yàlla sunu coon yëpp yem àdduna yàlla sunu coon yem àdduna bis bu ñu tese sunu borom yàlla bu nu rus bis bu ñu tase sunu borom yàlla bu nu rus yàlla noonu yàlla jéggal bàkkaar yu jëkk ak ñu mujj nangu sunu jaamu yàlla la gënte gën ci nun yàlla nañu ko yàlla defal defal ko jullit yëpp barke Sëriñ Tuubaa bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi bokk yi bàyyi ci barab yi fasanti ko ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci màggu yàlla baaxoo yonante bi dara jëy Sëriñ Tuubaa daje bi nu yàgg ko fee daje muy ndaje moo xam ne ndajam la ndax alxuraan moo ci jëkk moo ciy mujj njaboot ak sëriñ Tuubaa gi ak njaboot ak sëriñ gaawaan bi ñëw di ko ànd ak njaboot ak kër sëriñ Ibrahima jax jëmm jii ñu leen di présenté nag muy sëriñ Abdou Aziz Mbacke moom moom sëriñ moo Modou Fati Xari sëriñ moo Modou Fati Xari moom sëriñ Masamba sëriñ Masamba bokk ak Xaadim Rasul wenn waajur ma maranta sëriñ kon sëriñ bi yal na taxawaay bi yàgg lool te ànd ak wér ci barke Cheikh Seydil Muxtaar sunu bunt ci kër sëriñ Touba kon mooy sëriñ ab Aziz Mbacke moom lañ leen di présenté euh, mooy njàlbeenu waxtaan wi nag ndax euh, ni ko boroom xam-xam yi baaxoo waxee minal xadimi ilal xadimi tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi kon tey mooy sëriñ bi ci moom la ñu tàmbalee jataay bi ah, ci sëriñ bi lay jeexe nu wàcce suñu kàddu ba jotaal leneen ndigal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan mucc yàlla yàlla na nekk ci ñun ñëpp ñu ngi ziare mbooloo mii nag ci kër suñu wayjur wi di alhaaji njàpp ci turu sëriñ Abdul Aziz moom sëriñ Modou Fati Xari mii nga xam ne moo toog nii waaye di beral ab ziar nag sëriñ Abdul Xaadir Dia mi nga xam ni mooy xaalifa tey buy alhaaji sëriñ Dia di ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam di ziare nag kër gi yëpp njabootu alhaaji njàpp yëpp ci turu Serigne Ousmane mii nga xam ni mu feggoog ñun ci ndeyjoor joor buñ ko ko joxee teg ko ci loxol sëriñ Fallou dafay daj ñëpp waaye di sant yàlla bu baax a baax ci teew bi ñu fi teewoon daaw ci waxtu wii te teewaloon fi suñu kilifa ñun ñëpp di kilifa Serigne Abdoul Aziz Dabakh Mbacké mi muy Cheikh Mouhamadou lamin Bara Mbacké moom Serigne Modou Faty Khary Mbacké moom Serigne Massamba Mbacké digganteem ak waa kër Alxaaji Njàpp kenn dootu ko nettali kenn nekkatul diggante nit ako taalibeem waaye nit ak ay doomu baayam la nit ak ay xaritam la Serigne Abdoul Aziz nii nag teew fi teewaayu Cheikh Mouhamadou lamin baara Mbacké waaye teew fi teewaayu waa kër Serigne Modou Faty Khary yëpp ci ñaan gi nga xam ni at mu jot ñu taxaw di ko def di ko ñaanal suñu wayjur wi nga xam ni mooy alhaaji njàpp ci teewaayu waa kër alhaaji Serigne Ndiaye yi nga xam ni kenn ku ne xam na seen diggante ak alhaaji njàpp mi nga xam ni mooy wayjur Serigne Ousmane mi nga xam ni moo fi nekk waaye suñu kilifa gi nga xam ne moo doon wax léegi daanaka dafa wax lépp rek tàmbali ba alxuraan la waaye mujj ga alxuraan la ndax bu ñu xëyee jàng nañ fi kaamilu alxuraan te alxuraan nag moom <laughs> jàpp naa ni mooy buntub lépp lu ab jullit di def ndax moom la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa isa xarata alqur'ana naa baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati ijaban mansura waaye alqur'an moom itam la cheikh ahmadou bamba waxoon ne la la Cheikh Bamba doon jël di ko teg ci kaw lal di ko wax yaa kitaabal karimu anta habibi wa xalili wa xablu kunta tabibi alquran boobu nag jàng nañ fi kaamilu alquran ci njiitul al imam Modou Gueye mi nga xam ni moo jiite jumaay murit ji ca kanam tuuti incha allahu ñu nekk ci xasida yi nga xam ni moom la ñuy jàng te Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bindal ko boppam te loo xam sëriñ bi xam mu gën laa xam boppam ndax moo waxal boppam ni karaamati fi xatti yat yi sama karaama daal mooy sama mbindum loxo ñu yendu ca loola ba ngoon ñu tàllal loxo yi Cheikh Abdou Khadar mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ alaaji sëriñ ja mu ñaanal mbooloo mi ñu dem ba déwén lii daal moo indi woon teewaayu jëmm ji nga xam ni mooy sëriñ Abdoul Aziz moom sëñ Modou Fati Khary ab toogaayam rek nag ci mbooloo mi tekki na ni innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum wa taqulu lalakum turhamun ni ko yàlla waxe woon yéen ñi bokk ngeen gëm yéen ñëpp ay bokk ngeen na ngeen rafetal seen mbokk gi ndax yàlla yërëm leen ndax rafetal ak bokk moo indi turam wii nga xam ni way juram sëriñ Modou Faty Khary nga xam ne sëriñ Massamba Mbacké mooy way juram mu jël ko duppee ko alaaji Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne mooy doom ci Seex Sidi Hadji Malick ngir ak jàppante gu nu jàppante tax mu dippee ko ko ngir seereel nit ñi ne nañu bàyyi xel ci ne kenn ku ne fa nga nekk aw yoon la wu jëm ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ka yàlla tànn teg ko suñu kanam nañu la xat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla barkeel sëñ Ousmane sëriñ Baara nee na wax dëgg yàlla yoon yin ko def yëpp da koo fekk ci ay xat-xat moo tax mu yónni jëmmi boppam muy sëñ Abdul Aziz mii waaye xam ngeen ni bu ko fekkoon fii moog yéen mooy bokk tàmbali bi moog yéen mooy bokk mujj ga te noonu la koy defee fa mu nekk ndax ni ngeen di ñaanalee seen wayjur wii moom noonu la koy ñaanale ndax diggante bi du ñaar waay kenn la kon ñu ngi ñaan yàlla yal na ngeen ko yàgg a taxawu te njaboot gi yëpp fekk leen fi lu ñu ñaan ci moom yal na yàlla jotale ko jotale ko njabootu alaaj sëriñ Dia ga nga xam ne moom mooy wasilaam yal na yàlla barkeel yëpp seen bokkum taalibe Oustaz Medoune saw waqulu hawli haza wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa ñu jël kàddu gi rek ci ndigal loo xam na xay na dana dis suñu lool waaye ndigal lañ jox ngir ñu jottali ko muy cant goo xam ne mu ngi bàyyikoo ci sëriñ Abdul Xaadir ja di xalifa alxaaji sëriñ Dia ak mbooleem ay rakkam ci bis bii nga xam ne ñu ngi koy taxawal seen woy jur di ko ci ñaanal muy alxaaji sëriñ Dia ibnu sëñ Ibrahima ja muy bis la boo xam ne boo xam ne kat mbégte mu rëy la ci ñoom di bis boo xam ne kiñ ci fàttaliku. ba ilaa yawmi diin su ko fàtte ndax ba jëf jotee daa jëf ni ko ñëpp jëfe rafetal lam jëf teg ci te jëf jooje ni ko alxuraan waxe woon rek dafay sax ba ilaa yawmi diin di génne meññent moo xam ne meññent ma ku ko jëfandikoo di nga xam ne borom jëf ci jëfam rëy na kon nag sëriñ bi mi ngi sant mbooleem ñi fi teew rawatina kili kilifa gi nga xam ne moo fi jóge léegi muy sëriñ Abdul Aziz ibnu sëriñ Modou Fataxal ibnu sëriñ Masamba ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jóge Daaru Salaam di ay kilifa ñëw teew ci barab bii sëriñ bi mi ngi leen di sant ba ci sëriñ bi sëñ sëriñ Amidou Mbacke sëñ Amidou moom sëñ Abdou moom sëñ moom sëñ Mamor Mamor Mamorum sëñ euh, sëñ Modou moom it léegi lay door agsi yéen ñëpp rek sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax xam ne bis bii de bis la boo xam ne moom rek lañ am ci bis boo xam ne ku ci teew rek mel na ne desaloote leen dara ñun nag mën nañoo wax ci sunu maam loo xam ne bariwut waaye am na luñ ci fekke lañ ci fekke mooy ab royukaay la boo xam ne mbooleem ak njabootam gu góor ak gu jigéen yar na leen jàngal leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ba son sonnuñ luñ kenn te bu ñëpp defoon ni moom kon yaakaar naa euh, lu bari ci àdduna dañ ci noppalu la tàmbalee ci sëñ Cheikh ja suñu wayjur ba ci sëñ Abdul Xaadir ba ci sëñ Asmoor ba ci sëñ Fallu ba ñëpp rek jëmbat na leen ci fa nga xam ne fa la nekkoon mooy doonub taalibe doonub jullit doonub murit doonub saadix moom lañ xamoon ci moom alaay sëñ ba alaay sëñ ba mu fiy nekk ci àdduna doon dund mbooleem lu nit daan sàkku ci àdduna kenn ëppale ko woon waaye daa jaayoon lépp jënde ko ak taalibe te xam nañ ci lu wéree wéree wéree wéree moom de bi fi nekkit lim ñi nga xam ne ñoo jamonoonte woon moom doon ay bokkam doon ay dëkkandoom ñoom ñëpp jege woon nañ ko ngir maslaa gu muy maslaa ak ñoom ak doxal rafetal gu muy rafetal ci ak ak mbokk te loolu ñun ñëpp wér nañu kon nag mel na ni taxawaay boobu bii mel na ni njaboot gi ñoom taxaw nañ ci taxawaay boobu bii ngir dindal seen wajur woowee kon nag ñun ñii de wax dëgg yàlla di am nañ lu ñu roy ci sunu maam muy ragal yàlla bu wér maanu bu wér sàmm ak bokk bu wér tabe gu wér te mën a dimbalee doonu murid doonu saadix ndax jamono yi fi nekk de bari waa na alalam kilifa daana ñëw sant Mbàkke dugg ci alalam jëfandikoo jëfandikoo ko num mu ko nu ko neexee te du ci am aw naqar mbégte rek la ci am waaw lam manoon ci alalam de ñun ñii. bari waa na koo xam ne mënoo ko ci mooy alal li muy neex-neex ci xol nga xëy lu jar ay millions mu taqale ko yow jëm ci doomi Serigne Touba nga mën koo ñàkk muy oto jamono nga xam ne oto oto yombutoon saree sax yombutoon waaw mu yor oto na nga koo benn oto na nga koo bàyyi jox ko doomi Serigne Touba yor tànkum neen loolu mel na ne am mor sar dong ko man la ñu rawee woon ak ñoom la rawee woon mooy pas-pas la ñu rawee woon pas-pas ak dogu ndax ñoom seen ngëm gi ñu gëmoon Serigne dañ caa amoon yaqin dañ caa amoon yaqin bu wéree wéree wéree moo wax lañ fàgg woon ba ilaa yu mi diini mën nañ cee dund te jeex kon nag Serigne bi mi xanaa da du ma guddal waaye Serigne bi mi ngi leen di sant di sant mbooleem rakkam yi tàmbale ko sëñ Asmor ba ci sëñ Ahmadou ba ci sëñ Mouhamadul Fadal ba ci ba ci sëñ Xaadim ba ci jigéen ñi. waaw sëriñ Abo Mbacke yi moom moom xalifa Daaru Salaam it yebal na fa délégation boo xam ne sëñ Mbaye seen mii moo ko jiite muy lu rëy nag waaw tañ tañ rafetlu ko lool nag waaw. kon nag mbooloo mi sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm sëriñ sëriñ Abdou Baye Abdou Khadir ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi ndax sa taxawaay wax dëgg yàlla mën na sëkk ci wet yëpp ah, ah, mën nga fay taxaw taxawaayu sëñ Gaawaan. man nga fee taxaw taxawaay sëñ Ibrahima Dia kon sab taxawaay yaatu na lool yàlla na yàgg lool nag taa ànd ak njaboot gépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu baax ci turu sàmba saw mi nga xam ne mooy xalifa alaaj njàpp saw ak rakam alaaj buubu ak Jibril ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziare di leen baal di ñaan yàlla na suñu borom boole ñu baal. wax ni wax dëgg yàlla de seen xol sedd na seen xel dal yaakaar gi gën naa dooleeku bu baax ndax lii moom kum doy dara dootu la doy ñi nga xam ñooy sunu kole di njabootu sëñ Modou Faty Khary di sëriñ Baara yebal fi rakkam sëriñ Abdou Aziz xam ne Touba la xëy ñëwaat ñu waat ko ku wàcc liggéey mu wëlbatikuwaat tuubaa nii kon loolu kum doy dara dootu la doy kon ñun sunu xol seet na baax ci njabootu sëñ Modou Faty Khary gi ah lii xam ne moom moom lañ moomal suñu bopp nag muy ñi xam ne mooy waa Daaru Salaam ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di xam ne kenn di sut ndax damaa ne sëñ aboo jërul nga yónnee ndaw ndax ka nga xam ne mooy sëñ am mu sëñ Mamour Sikaab ban ko dalay def ak léegi boobu sëñ Abdou 3 2003 ñoom ñaar ñuy ànd di ñëw ak sëñ asital ñoom ñett ñu di ko doxal ba mu si tey fii ma ne kon jërul nga yónnee ndaw la ma waxoon sëñ am rek laay waxaat kon moom doy na fa sëkk kon bii sëñ aboo yónnee ndaw mu toog sëñ am toog wax dëgg yàlla loolu doy na sëkk kon mel na la ma ko waxoon kon ca biir saal ba ñun ñett rek kon loolu moom wér wér nañu ñu wëlbatikuwaat sëñ sinim sëñ am yónni ndaw sëñ yónni yónni rakkam boole ko doomam loolu kawe na njort kon euh, imaam it sëñ imaam it yónni euh, délégation bu am solo ñoom daan yónnee chaque jour ñu ngi fii te bu sëñ aboo yónnee rek kon Cheikh Abdou mu wër naa bu ñu yónnee ndaw waaye jàpp na ne moom war na ko war war naa ñëwal boppam kon loolu sant la ak ngërëm ñi nga xamal daal njaboot gépp ñun ñu ngi sant sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne bis bi moo xëyoon jël ko jox ko Baye Alaaji ñun mënuñu koo fay Baye Alaaji li ma waxoon ci télé bi rek nee na moom amut lu mu mën a defal ci Abdou Khadir ndax bis bi mu jàppoon ne moom lay waxtaane ñaanale Alaaji Sëriñ mooy bis bi mu jàppoon mooy bi ñu joxe soxna am Ami bi mu koy maye. waaye sëñ Abdou jël bis bu doy nii jox ko ko jàppale ko ba bis bu tooy fii wax dëgg yàlla la mu waxoon ne di leen ma sant la si Abdou Khadir li bis bu ma jox kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci turu njaboot yëpp taxawaay bi rafet na ci ndax bam ñu koy soog ci sax am nañ ay jafe-jafe waaye fi ñu toll ni wax dëgg yàlla sët ak sëtaati bay njàpp yi ba ci doom yi kenn ku ci ne yaa ngi ci def lu koy suru njor kon suñu xool seet na baax jëwriñ jim ñu boole muy suñu aasmoor wax dëgg yàlla matt na ne lépp matt na lépp suñu abdu suñu aasmoor nit ngi ñu booleel matt na lépp bu dee ci kër gi nemmeeku gi matt na ne ñëpp bu dee ci xale yi nemmeeku na matt na lépp kenn koo xam ne tawoon na ci kër gi wala ku mën doon la ko ca waram ma ngi ko cay def noppal na la ci lépp lépp loo xamante ne ne war nga ko def mu ngi koy def ci kër gi kon sëñ Asmor ñu ngi koy ñaanu suñu borom guddal fanam àggali lu ko defal ko la sa njot wax dëgg yàlla kenn ku ne da jàpp ne yow rek lay sa sëriñ kenn ku ne da ngay jàpp ne yow rek la féetewoo waaye nag ñu ngi koy ñaanu suñu borom guddal fanam àggale ko yéeneem la ab Abdou mii de màgg addi yi dafa yëkkati fukki ju nu jox ma ne ma dama mee joxal baay ma baay maam ne na ma ñaanal sëñ Asmor mu gudd fan te àggale ko ndax noppal na ma kon ñu ngi koy yeesalaat sëñ sëñ aas sunu xol sedd na sunu xel dal na wax dëgg yàlla taxawaay bi nga taxawaay Daaru Salaam rafet na lool taxawaay bi nga taxaw ci kër gi rafet na lool kon ñu ngi lay sant di la gërëm kon sëñ bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan yàlla na suñu borom boole ñu baal wax dëgg yàlla sant mën ta wees sant lii moom kum dër dootu la doy kon ñu ngi sant ñëpp di sant sunu mag yi nga xam ne muy sëñ Fallou Sow ànd ak njabootu Baye a ngi ñëw teew fii xam ne saay su ne bu suñ muudu faati xari di yebal waa kër suñ muudu faati bu ñuy yeble moom day teew rawatina suñ muudu faati xari nekk fi ak alaaji yanda kon dëgg-dëgg loolu mënuñu ko ñàkk bañ a sant ak gërëm suñu xarit yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan suñu moom àggali si ne dafa leen koy suñu jox mënuñoo lim bu ne ba ca kawoon danañ lim délégation yi waaye dañ ne woon mënuñu rek dañuy commencé di wax rek suñ Moustapha ñëw ah te moom lañ doon xaar sax ci jàng xarnu bi wax dëgg yàlla mu kawe na njort ndax suñ Moustapha li tax ñu koy xaar ci kaamit mooy Baye Umar moo ko daan jiite kon Moustapha at mu nekk mu ñëw di ko jiite léegi lañ may soñ mooy ne nañ déggandiku sëñ Moustapha ñëw kon xool alhamdulilah rabil alamin kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon nañu wàcc suuf rek jàng xatm bi jërë ngeen jëf وينني يا بر يا كريم داع عن سكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا بما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني وقتني لاختفاء سنني من بعد ما كاد امتداع الناس يدخلني في سرك الخناس وكدت للأمداء والإدراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استقال بهدى المعلوم فقلت سا سكر وسا توسلي بالمصطفى سفي عين رسلي وببني وبناتهما ليسعوا في يسري عن أجمع يا بر يا غفور يا عليم إني قمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق الأنعام amit hawaaya xallil manaami yaa xaaliqi yaa kaamil asifaati laka